Don't asalaamaaleykum yéen ñi seetaan di ñu safoo saa su nekk rek dañuy am mbégte ak kontante bu baax a baax waa dëgg neexul tey nag boo leen gisee suñu taxawaay fii rek ngeen xam ne Pape a woote te Pape su wootee rek ku jàppoon da war a bàyyi dëgg neexul doo si wéet benn yoon ko leen sa dixaa baa ngi nii xale bu pare bi xale bu fësan bi maa la wax lii daw ma ci saala yaanday tey nag ñu ngi fii ci gaynde ah dina wàcc ba zéro degré maa leen wax li tey fii dara du yomb dina mel ni tànn mbéeru vampire maa leen wax damay xuus ndànk rek dal di doxantu ndax seen naa fee benn xale bu góor taxaw ak benn xale bu jigéen ñu sànni ko rek fël fëlaale def la ma saf sama man topp ma ma yëngal gësam fii wàcc ba zéro degré digg neexul. xeeboo li nga. mosuma koo xeeb. yaa sañ sa lii yëpp. jàppale sunu grand sunu mag papa Ndiaye Thiou doomu day ma xujje dëgg neexul. kon tey luy sa teewaay ci bés bi. waa bis bi nag dara waralu ko di njaay day sunu grand day sunu lépp ndax tey bu newee ba ñemee ci aar bi moo ñu teetee xama am na fu mu ko yóbbu bu xewlee bés ñëw rek dañ koy ñëwal daal di ñëw def luy war wàcce ko dem ñibbi. dëgg neexul kon fii dina wàcc ba zéro degré. sañse yaa ngi mel ni tuleeg maa la de. dëgg neexul de. boo bëggee dégg-dégg dana moo ngi mel ni dana mel ni xeexu wuyu. kon de gis naa la ci xeex bi la ñu bokk. Ah, ëpp na kon tegal foofu sa baaraam ba ñëw. mais lii lan la nii tamit ëpp na. Eh, kooku xadi lañ koy waxee. kooku ah? ñu ne da ngaa bëgg. waaw romb naa foofu nag. Eh, man nopp naa la de. dégg naa ko ba taay neexul. Ah, ah, dégg neexul luy sa teewaay ci bis. waaw sama teewaay moom mun naa ni dama fi ñëw ñaari yoon en tant que waykat en tant que euh, seet si tamit ki nga xamante ni ñooy ñaari doomu pend naar yi hmm. mi Papa Ndiaye ak Cuxa Axa. ah loolu de dara fayu ko waaye comme que waykat nga damaa bëgg rek nga daal ma may tuuti rek. ah loolu de ma neex. man de bëgg naa ku bëgg yaayam ku sopp yaayam ba mel ni papa jibi mi ma bëgg sama yaay eh jam jaala mi si jàjj ma samba nee na faal way sunu yaay acum dugal ci biir maa ngi ñëw fekk la fi ñu pelloo bam neex ah, borom baatu wurus bi acum maa la bëgg yow ma fi andi yàq samay nelaw tey ñëw ndax moom. fii dina wàcc ba zéro degré ak roqi daba ren. Hmm. oh waxul naa ko fël-fëlaale may gi sànneeku def la la sax nii. waa gis ngeen xale bi jëlal leen ma ay yow li neex na de ah ëpp na sama caméraman topp. Moustapha pourquoi boo nii. nga def sa boulot di nuyu ak sa noir yow daal li tax nga baal yow tamit. yow noonu naa la de. ma raw la da ngaa rafet. ne maa yow dañuy génn nag. am na ñoo xam ne ñu ngi ciy mer waaye garaaw. ah ah ñooñu seen doon ñooy affaire la ah. Oh, ku mer nag kalaame yàlla. mais luy Papa Ndiaye Thioub bu wootee di Papa Papa Diouf ñun ñëpp ñu teew ndax ku ne xam Papa Diouf yàlla def tey ma nekk ci waali mais teewul a rafet Pape Diouf su ma ñëwee ci bisam bi nga xam ne dañ koy sagal c'est normal aussi Papa Ndiaye Thioub di sama naw la di sama naw la fecc kat woote lu mel ni c'est normal pour ñu teew dooleel ko daal. waaw mais noonu la war a demee ñu ñëpp ñoo war a kontaan na xool yi neex rek li may wax chaque jour rek àdduna moom amul yàqalaat ndax yàlla mi ñu fi indi yàqalul kenn kon bu kenn yàqal kenn man tamit kontaan naa ci yow mais tamit. ba ñu gis sama ah dëgg neexul maa ngi ñëw xaar ma ci biir. sama jabar ji wuy ma bul mer de <laughs> kii ma ko nopp deuxième laa koy damay bañ ko sotti ma duul deuxième laa koy def. na la sotti duul non bu ma sotti duul. Ah. taxaw ak sa pàññi gi nee naa leen tey ah, ma damaa ma fecc piir xale boobu nga xam ne tànkam du laal suuf moom laa leen di tegal nii de waa Arma lii lan la ci sañse. waaw mais sama xarit tànk bu laalu suuf ba dina baax. <laughs> mais Arma yaa ngi sangu. waaw waaw gis nga rek ñuy génn kër ga rek soxna yi toppatoo ñu. gis na moo xewle te dëgg neexul gis nañ fi artiste am yi Pape doon nekk fecckat tey yàlla def muy sargal Pape Diouf ngay moromu fecckat la ñu gis la ci teewaay ci bés bi ana lan mooy sa teewaay ci bés bi. waaw Papa Ndiaye Thiou moom bu yaakaar naa ni fecc xewle ëxlu fecc te tey bo jaayante nañ ba kenn du wax fecc te duñu ci boole loolu ñu kiy sant bu wér ndax du suñu njàmbaar xëy na dañoo jàppale dañoo dimbali bu wér waaye Papa Ndiaye bu xewlee faw ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw teewee ko ndax mën te ñàkk ndax tey ku fi dem ba bëgg fecc moom wax dëgg yàlla war nga ko delloo njukkal ci Papa Ndiaye cu ndax tey punya démé e ba ba soli olehnya costume wala ñuy sañsee di taxaw ci sur scène di fecc c'est grâce à lui donc wax sa mbax way du wañ dara ci sa mbax waaw waaw. <laughs> maa lay fay. waaw lu tax def tout balaa nii sañ sa ah, gis naa la. gis naa la yaa ngi def ba mu nice. <laughs> gis naa la mais luy sa teewaay ci bis bi tey. sa thème bi nga wax lii ci lu muy génn ci télé lay génn wala ci rajo. <laughs> ak King TV rek. Ah, mais du ak Europe. ah ak King TV rek. King TV. ah King TV de macha allah kon. luy sa luy sa teewaay ci bis bi. waaw man nag de wax dëgg fa yàlla war naa teew ci bis bi. na Papa Ndiaye Diouf moy sargal pap Diouf te ku ne Pape Diouf ne buur géwél ah te euh, mbir bo ci liggéey bok ci cellule communication génération consciente ñuy sargal sa leader kon bo tewé warna ah warna ah kon tay tey suñu suñu danseur suñu kat kenn ki nga xamanteni kenn la ci ñun moy sargal suñu leader kon motax ma tew mais kontaan naa si yow nak mais kontaan naa ci wa King de. Ah, King TV. mais King TV fu mu nekk. ba Jaksaaw sama dëkk sax la nekk ndax man jàmm gën laa dëkk caaro yi King TV nekk Jaksaaw kon léegi daal xam nga nu ñuy def King TV daal léegi li may bëgg def mooy dañuy def événement bu ñuy def rek ngeen bokk ci. ah loolu neex na. ngeen gunge ñi fépp. Ah. génération consciente le leader de la génération consciente. loolu neex na ngeen gunge Pape Diouf. loolu nee leen saf Pape mm, ak waa King TV Bourguel ak waa King TV. Sénégal ak waa Kim TV ca kaw ci kanam da ngeen xew de. kontaan naa ci. mais bëgg naa ci yéen